Thank you. 42 ans. yi dafa mel ni boo duggee quinze soos jàpp ne wala crédit maa ko woo rek waa jeexal léegi nii. ma maa xool kii

waaw mag bi nag nii daal su ko defee daal bés bu ñu naan Aliou Aliou wax ba wax dëgg yàlla daal la doon jëloon yooyu daal loolu lay jàkkaar. te xam nga rabo su loxo jeex tey lakk ba mu nekk tey mu bàyyi xam nga ko départ bu jubal waaw dafa lay daal wax biir marché bi nag maa moo daa xam niñ ko waaw su dee mooy lakk nii nag léegi nag dim dim si moom tole fekk na xam nga ñoom daal di ñëpp la Baye Mor Dia mu taal di suñu daal bi nekk rek mu daal suñu ñu daa xam naa waaw maa ngi lay wër rek yaa ngi fi soo paree ma jël la ma. ok waaw c'est ça. waaw waaw waaw waaw sañ a perte loolu nga ñëw. Kurang ko bener ko bener ko bener ko. Na kurang ko bener ko. Mana tamu lagi? lakk-lakk bu am métti métti mu am fii ci Touba marché Ocass <coughs> fi féeteeg marché Forot